dafa nekk verdict boo xam ne euh, juge yi indiwuñ fi benn firnde boo xam ne wane na ne Lamine Diack li ñu ko doon jiin moo ko def dama jàpp ne dañu décidé woon avant que Lamine Diack yoon dafay daanu ci kanam kawam puy yoon di daan ci kaw nit nag moom day fekk ñu sukkandiku ci loo xam ne ay firnde yu leer la loolu mooy la charge de la preuve fii nag moom procureur moo amoon charge la preuve maanaam moom moo doon tuumaal Lamine Diack moom moo woon war a wone ne li mu def baaxul moo war a wone ne liñ koy jiin moom moo ko def teg fi ay preuve yu leer loolu nag moom la ñu gisul woon ci procès bi tey nag li ñu gis mooy que tribunal bi dafa jàpp lépp li nga xam ne procureur moo ko waxoon mu teg ko comme étant la vérité jàpp daal ne loolu mooy dëgg te loolu du yoon booy juger da ngay xool li nga xam ne moom la procureur wax xool li nga xam ne moom la défense wax gis ci ñoom ñaar kan moo indi ay firnde yu leer te li ñu gis fii du loolu léegi li ñu décidé ñun ñun waa nga xam ne ñoo défendre Lamine Diack mooy def appel maanaam wan juge ne li ñu wax ànduñ ci te yoon def ñu may ñu def appel bu dee décision bi ànduñ ci te yaakaar nañ ne bu ñu demee appel. foofu moom yaf yi ni gën a leer léegi dama buggoon aussi sant Lamine Diack parce que ci procès bi yëpp dafa nekk koo xam ne dafa taxaw fu dëgër jàpp si yàlla di déglu di encaisser te wax amul benn moment boo xam ne mu ngi doon jamat mettit di mettit lu nekk dafa jàpp si yàlla gis aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale mu leen di gërëm parce que am nañ soutien yu bëri yu nekk Sénégal donc euh, fii dama jàpp ne décision bi du seulement contre Lamine Diack dafa nekk décision contre ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak moom di ko jàppale mais waxuma ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak moom te dem bi ci biti ba ci kanam ñu xaw ko lor parce que gis nañ ne fii euh, moo fi nekkoon ak Habib Cissé ak docteur Doole euh, Pape Massata nekku fii mais bokk na ñi nga xam ne ñoom lañ doon topp mais ñi ci des yëpp nekkoon ay vice président comme euh, Sébastien Coe euh, nekkoon responsable marketing ñoom ñëpp kenn laalu leen loolu nag moom euh, dafa nekkul yoon loolu jaaduwul te mënuñ ci ànd moo tax daal ñun nañ continuer xeex te def naa ne mun na am yàlla jàppale ñu. ndax Lamine Diack dana mas a dem Sénégal wala da ngeen liberté conditionnelle bi Euh, ñun lamit njag nañ def yëpp pour mu mun a dellu Sénégal le plus rapidement possible te xam naa ne am nañ ay jumtuwaay yoo xam ne mun nañ ko utiliser pour que juge bi autorisé ko moom mu dem Sénégal loolu mooy li mu xam ne loolu mooy mbugge mbugam loolu mooy li ñuy ñaan te nañ def li ñu mun yëpp pour mu am loolu.